Thank you. waaw li ma fi andi mooy fekk si équipe nationale bi d'ailleurs jógi xoolaale sax wax ma ko ci tubaab mais war a xoolaale notre blessé di ko ñaanal yàlla mu dellu ci sagom waaye li ñu fi andi mooy ñëw seet xele yi dañuy waaj dem ci beneen match fekk si it fédération di leen féliciter encore parce que du ma taxaw di leen féliciter gis naa seen taxawaay gis naa ne lépp lu ñu war a def ñu ngi koy def jege xale yi jàppale leen jàppale staff technique bi ñu jóge ci match bu am solo nag ñu gagné ko muy suñ premier match deuxième match war a dajeeg équipe bi ñu jàpp ne mun na diiroog mbagg Sénégal ci biir poul poul bi te loolu nag ay théorie la waaye li ñuy def yëpp ci biir terrain bi la ñuy liggéey luy tax ñu war leen mun a gañe bu ñu dajee. justement match boobu noo ko gisee ndax Algériens yi am nañ ko mel ni Sadio Mané seen équipe. am nañu am nañu affaire bi du du benn nit affaire bi collectif la c'est vrai que ñoom am nañ seen Mahrez am nañ suñ Sadio Mané mais am nañ suñ ñeneen mais li am solo moy ñaari équipe yu technique bu ñu dajee képp ku bëgg football da ngay am cawarte ñëw seetaan si jàpp nañ ne ne football bi dina nekk football bu technique waaye ba ba may gis leneen dama jàpp ne Sénégal mooy gagné Algérie. wax nga ci mbooloo muy lu am solo premier match bi am na yu ngeen di def ngir yooyu bañ a amati ci. fexe rek ba wi ñu bañ a euh, mu am rupture de communication lépp lu ñuy wax ñëpp xamandoo ko defandoo ko te bu amee jafe-jafe ñu fair face à ces jafe-jafe parce que fii ñu ñëw nii ñëwuñu fi pour ku nekk di am lu la neex dañ fi ñëw pour gunge équipe nationale dana ami jafe-jafe mais dañu war a faire face à jafe-jafe là ci ci teggin ak yar loolu bu ñu ko defee rek du am benn jafe-jafe fédération. fédération jàppale na xale yi fi nekk muy étudiants yi ñun jàppale nañ leen jox nañ leen i billet mais bu fekkee dafa am retard quelque part li koy régler taxaw waan taxaw u jaay image Sénégal ci yar ak teggin moo koy moo koy moo koy régler moo tax bi ñu yëpp yëpp passé ba waxtaan am ñu ngi gërëm ambassadeur di gërëm consul bi di gërëm étudiants yi ñu fekk parce que lépp xër la pour jàppale équipe nationale bi mais du leneen kon nañu ko rafetal te ñëpp ànd nekk benn li ñu fi andi ñu def ko apporter li ñu war a apporter équipe